am ñoo xam ne dañuy teg seen kaw ba génn dindi ko sànni am ñoo xam ne it bàyyi seen doom yi ñuy dem rien que di wutal xaalis man man loolu dama ko gis léeg-léeg léeg-léeg bàyyi sa doom mu sol lu ko neex su génnee xale bu góor gis ko soit goor gis ko di ko jox xaalis soit góor di ko seet di ko may xaalis man loolu loolu dama ko gis te yow bu ñëwee xaalis boobu doo ko ne lii foo ko jëlee da ngay jël rek utiliser. da ngay xëy mais saa waay da ngay umu ndax saa bu xëy yaa ngi si taat doo am dara moo tax kenn mëntu am dara bu ñu si war a dimbali ñu sanctionné leen sax ñu fi moo gën. góorgóorlu nekk ci lu baax daal moo gën defal bon yàlla musal ci daal def loo xam ne lislaam da ko tere daal baaxul ah wax dëgg yàlla gën a lu moo ko mën na ñu ko bàyyi lu bon daal def lu baax daal moo gën rek. lépp loo gis ci àdduna dafa am lu ko waral bu dee xale jigéen ñi yàlla subhaanahu wa taala dafa wax si benn aaya mu ni wala tabaru tabaru jaahilati ula maanaam bu leen génn yéen jigéen ñi comme jaahil yi génne di ko solo solo gu ban googu mooy nga génn wane say awra wala ngay wul ñi loo xamante ni islam bëggul nga gis islam bëggul kenn gis ko ci koo xam ne la talaa araam ku mel ni yeneen sens la wax ni almaratu kullaha awra maanaam jigéen dafa war a muur ay awraam awraay jigéen nag. moo ngi moo ngi tàmbalee léppam awra la ba mu des xar kanam gi ak tenkam yi kon jigéen ji bu dee génn war na benn am comportement islamique bu mu war a génnee. xale jigéen dañuy roy ci télé yi ñuy gis ak yooyu noonu xam nga rek moo tax euh, solin gi xaw a changé pas aussi ci xale yu góor ñi dafa nekk léegi na ñoom ñooy poussé xale jigéen ñi à ce ñu soloo noonu. parce que ñoom dañuy nekk ñu nga xamante ne dañuy ñëw am seen soxla seen kër ñuy solu voilé tout ça duñ ko xool. bu ñu génnee di xool xale yu jigéen ñi wala ñu gis la nga ñëw sol sol bu normal ñu naan la yow ay yow yow yow branché woo bëgg laa influence ci sol boobu noonu. bu dee lii ñuy li ñuy gis si mbedd mi nii si rue bi maanaam si mbedd mi bu dee li ñu si gis loolu mën nañu wax seen négatif ndax la ku jigéen gi génn wane ay awraam loolu am na benn effet bi muy def si société bi. société bi nag bu ñu bëggee defar société bi faaw ñu defar kër yi ba pare ni ñu defaree kër yi yoon dafa waxoon ni maanaam jigéen bu koy takk nañ ko takkee si ñeenti maanaam si ñeenti jikko jikko bi njëkk mooy jigéen war nañ ko takkee si diineem war nañ ko takkee si askanam war nañ ko takkee si maanaam si alalam waaye itam yenn saa si waxoon na képp ko takk jigéen sa amul diine na xam ne dóor nga sa dóor nga sa loxo si ëkk mooy nañ defar kër gi ba pare kër gi nañ ko defar mooy ku jigéen gi nan lay toppatoo doomam ba xam ne bu màggee nekk ko xam te ni exemplaire lay nekk dafa jekkul sax doomu jullit ah, da ngay xool saa xëy yaa ngi gis ay taat ay taatu jigéen taatu bu façon bi ngay gis bu xeste bu ñu bu xaw loolu da ko gis bu tax da ngay umu dara doo bàyyi sa doom lu ko neex lu ko neex def lu ah, te dégg naa léeg-léeg ñu wax ji am doom da nga bàyyi sa doom muy dem defi lu ko neex defi lu ko neex ba ñëw di yëkkati ñaari téeméer jox la mu léew la mu yëkkati junni jox la te xamu fu mu ko jëlee xamoo fu mu ko jëlee xam nga déwul xam nga loola ci an yaa ya, ci ya, ànd. Ya, parents yi am nañ ci part de responsabilité parce que aussi sa doom buy génn sol war nga xool muy sol xam nga mais am ñoo xam te aussi dañuy sol dañuy dañuy sol dañuy def ni man sol sër sol tubay boobu boo xamante ne boo rombee kenn du la xool nga sol wóor du sër daw génn après nga wékku ko dem sa yoon xam nga loolu parent du la gis nit ku bëgg ku bëgg def lu baax da nga koy def loolu parents mun ci dara mais aussi parents yi am nañ ci pas de responsable am na xam dañuy génn sol yëre yu nga xamante ne mooy loolu waa parents yi bàyyi la nga génn dem soo génnee ku le na yow li nga sol nga ne ko sa yoon nekku ci fekk raw mun naa sama papa mu may xool raw mun naa sama yaay kon bëggoo lijjéen ci côté boobu moom parents yi am nañ ci pas de responsabilité. am na kër yoo xam ne de moom ñi c' est c' est c' est doom ñu ko faa def kon nag day mel ni rek parents yi ci lañu bokk ñoom ndax loo xam ne lii wax dëgg am na ci defin yoo xam ne daal wax dëgg yàlla euh, am na kër yoo xam ne ñu su mu ne su ko faa def kon nag day mel ni parents yi am na ci wàll parents yi am nañu ci wàll nag. li ma gàllankoor si société bi benn bokk na ci mooy chaque jour maanaam li naan day bëri njaaloo day bëri bokk na ci gàllankoor boobu tamit ñaareelu mooy sa njaaloo dëkk bu mu bëri yow sànq waxoon na njaaloo dëkk bu mu bëri feebar du fa jug ak la ak ñàkk du fa jug. kon gàllankoor yooyu yëpp am na si si euh, si solen gi ñu